Sulkos. Allez. Le vainqueur de Bognan 3. Oui, voilà, la grosse. La grosse, c'est moi, là. C'est ku baax la. Merci. Ah, ku la ku la dimbali kat. Ah, comment comment bien faire dans la faral. Yow, le vainqueur de Ligue Nicolai, wara Ligue Nicolai. Amul la. ana lii Nicolas am am ana lii Nicolas bàyyi na làmb ana corote ah, ah, bàyyi na làmb corote bàyyi na làmb ak kan am na kenn ku bàyyiwaat làmb de ke ka kàngam ba kàngam la njëkk daan bàyyi làmb góor gi góor gi étudiant waaye cekki ngeen dajal góor gi étudiant bàyyiwul kan la kan moom safe waaw moom. affaire affaire champion la def affaire grandeur la def moom champion la. mbër bu mag la danga mbër bu mag la. le vainqueur de Mourou Anta la le vainqueur de Safandou le vainqueur de Aliou le vainqueur de Amanex wala wala mu Amanex ku non non non non la ko def Amanex. moom Amanex. Amanex moo daan. Amanex moo daan. non man la nga daan ca laamu ja la nga daan ca laamu ja. le vainqueur de Safandou Pape Morlo ah Mamballa. Ronaldo. mu jaxate waa Ronaldo loolu suuru suuru màggal Kazu Rajab la woon def na dara de. ba Aliou wax naa ko. signature ba Italie la woon. Ah. Assane Ndiaye moo ko tëggoon. waaw moom Moussa Ndoye waaw boobu dafa feebar. waaw léegi euh, après mu jógee fa ci Moussa Ndoye. dugg géej waay. wala waaw mu ñëw ci corniche 30 avril bëre fa bëre bu métti. waaye bi mu ñëwaatee nag dafa confirmé ndax mook fii sa bala ñëpp dina woon am njaay joxal jóob moo ne fa moo ne fa jàmbar. mais mais mais ku Fils de Balla mënul ci yow dara est-ce man na ce que ci moom dara. laaj kama jël daal de. daal la. ah daa amoon daa takk ay daal laa mujj amul takk daal de laa mujj sumee ku bëre moo fa am ñu takk koppati mais ku Fils de Balla mënul ci moom dara est-ce que def son na ci moom dara ah, waxal ne moom Fils de Balla ku Fils de Balla ci moom dara. ku Fils de Balla ci moom dara est-ce <laughs> que Jackson na ci moom dara ah ah. waaw <laughs> la dama la laaj. maa ngi gudd ma rëy ma waaye ñu gudd ñu rëy de. dama la ku maa lay bëggee. ci loolu nekk. maa ngi ah waaw maa ngi doomu day kañ waaw. lépp jàmm. jour ji mooy jour ji mooy ñaata sax. jour ji mooy ñaata. waaw. ah xam nga lamb ñaar ñaari des. tey la 26. même pas une semaine. bi amul place am na place. yow oto bi nu đẹp def nu muy def waaw yow doom day doom day Lac Rose nga mais daf mel ni yéen ñaar da ngeen a rusante nangu leen a wax combat bi jaayu leen ko lan la non taxawal laay mënu ko dem de non non laay taxawal da ngay xeex ak moom wala da ngay bëre da ngay xeex ak moom wala

waaw Lac Rose Lac Rose sama waay ku baax la. merci. ah ku la ku la dimbali kat. ah comment yow le vainqueur de Luc Nicolaï waa na Luc li ana Luc Nicolaï am ah. am ana Luc Nicolaï. bàyyi na làmb. ana corote. Ah, ah, bàyyi na làmb corote bàyyi na làmb ak kan am na kenn ku bàyyiwaat làmb de. kee ka kàngam bàyyi kàngam la njëkk daan bàyyi làmb. góor gi góor gi waaye tekki ngeen dajal. góor gi étudiant bàyyiwul la sauvé góor kan la kan moom waaw moom ah, affaire affaire champion la def affaire grandeur la def moom champion la. mbër bu mag la danga mbër bu mag la. le vainqueur de Mourou Anta la le de Safandou le vainqueur de Aliou le vainqueur de Amanex wala wala mu Amanex ku daan. non bëreegul moom Amanex. non non non Lac Rose Amanex. moom Amanex. Amanex moo daan. Amanex moo daan. non man Lac Rose daan ca làmb ja Lac Rose daan ca làmb ja. Amanex moo njëkk a daan. le vainqueur de Safanou Pape Morlo ah Mamballa. Ronaldo. mu jaxate waa Ronaldo loolu suuru suuru màggal Kazu Rajab la woon def na dara de. ba Aliou Mané wax naa ko signature ba Italie la woon Assane Ndiaye moo ko tëggoon. abandonné ba mu tànn waaw moom Moussa Ndoye waaw boobu dafa feebar. waaw léegi euh, après mu jógee fa ci Moussa Ndoye. dugg géej waay. wala si sa bala waaw waaw mu ñëw ci corps 30 avril bëri fa bu métti. bi mu ñëwaatee nag dafa confirmé ndax moom fii sa bala ñëpp dina woon am njaay joxal jóob moo ne moo ne jàmbaar. mais mais mais ku fii sa bala mënul dara est-ce que ci moom dara. waaw ku ma jël daal la. ETDR établissement Touba Darou Rahman ci liguey ay bâtiment lañu ko ragné liguey bu taru lool té am qualité lool ñu dëgmal nak liguey bu yees mbokk mi déglul li travaux de réhabilitation du tribunal grande instance de Thiès ñu war ko défarat ba mu ñoŋ ci anam yi mu gëna a mbokk yi bu ñu jógewee fofu nak dañuy démat ci benen travaux de réhabilitation ci tribunal bu grande instance bu Mbour défarat ko ba mu gëna a baax def ci ay étanchéité de dernière génération def ci peinture yi gën ci peinture yi ba nopi teg ko ci ay loxo yu Camp militaire de Bargny bâtiment alimentation avec construction d'une fondation micropieux mbokk fondation micropieux nak moy li nga xamanteni ni bâtiment bi du tegee ci suuf si da ngay defar micropieux yi ba nopi dal di jël bâtiment bi teg ko ci kaw fondation bi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 ETDR, établissement Touba Rahman, travaux de bâtiment, BDP génie civil, fourniture de matériel, prestation de service Nous ñoo ci Si bu nous ñu soxlaa Vous pouvez 77 575 50 25 le 33 824 57 43 ETDR accessible ne pour ñëpp suñu adresse mi ngi fii ci Pikine ci technopole nationale villa numéro 406 ETDR moo Ar, Samusa sa bâtiment ba am durée de vie bu yàgg kon nag songu ji ETDR ndax nag moo fi ne